Pressing Lat Dior Pressing Lat Dior di cadre idéal ci li jëm ci seen wàllu nekkin. asalaamaaleykum wa rahmatullah man la soxna Anta madame Thiam maa ngi fii ci Pressing Lat en face euh, mairie Alioune Sow bi sur la route de Mbour. Pressing Lat Dior moo ngi dend ak mairie Thiès Ouest ci yoon wi dem stade Lat Dior seen numéro téléphone di 77 712 76. 0 0 seen pressing Lat Dior moo leen di may naafila di jour fii ci Prestige Thiès ngeen ànd ci Cheikh Modou Ndiaye borom. aouzu billahi min aseytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi laa xawla wala quwata illa billahi alil azim yaa xayra day fil ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila xadadi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi dellusiwaat ci naafila des jours yi nga xamante ni ñu ngi leen koy defal ci weeru koor wile fa tabaarakallahu ñu ngi ci juróom benneelu guddi ci weeru koor juróom benneelu guddi ci weeru koor nag naafila yi fa tabaarakallahu guddi juróom-benneelu guddi ci weeru koor naafile yi ñaari rakkaxa lay doon rakkaxa bu ci nekk dangay jàng faatixatul kitaab benn yoon jàng xulxu wallaahu ahad fukki yoon ak ñaar ñaari rakkaxa moom la naafile di doon incha allahu rabi ginnaaw boo juleegee ba noppi nga jàng faatixatul kitaab benn yoon jàng xulxu wallaahu ahad fukki yoon ak ñaar incha allahu rabi juróom-benneelu guddi ñaari rakka yooyu moom la ñuy naafila wax na ni képp ku ko def mel nga ni ku julli ca maqaamam Ibrahim junni rakka waaye mel nga ni itam ku julli ca jumaay makka junni rakka mel nga itam ku leel junni doomu aadama yoo xamante ni dañoo xiifoon nga leel leen di nga am yoon yu toll noonu ci julli gi di naafile gi nga xamante ni mooy naafile juróom benneelu guddi ci weeru koor ñu leen di jox rendez ci juróom ñaareelu guddi ci weeru koor yi ñu koy ànd ak yenn fii ci Thiès Prestige ci naafile di jour yi incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa pressing Lat di cadre idéal ci li jëm ci seen wàllu nekkin. asalaamaaleykum man la soxna Anta madame Thiam maa ngi fii ci pressing Lat en face euh, mairie Alioune bi sur la route de Mbour. mbokk yi yéen ñi lu baax jàpp leen bu baax adresse bi pressing Lat mu ngi dend ak mairie Thiès Ouest ci yoon bi dem stade Lat Dior seen numéro téléphone di 77 712 76 00 pressing Lat Dior moo leen doon may naafila du jour fii ci Prestige Thiès ngeen àndoon ci ak Cheikh Modou